a jéy-jéy sang man la doon seet maase la ma bàyyi nag ma toog mu ne maa ngi dem sa kër ma ne ko waa baax na ndax dem ci guddi dafa ma woo laaj ma ndax ndox mi daa dugg sa kër ma ne ko waa ba fees bi mu xëyee maase ma fekk ko mu toog mu fekk ma fa ma toog mu nuyu ma ne ndax am na yoon bu jëm ba sa biir kër ma ne ko waa ah, dala doon seet moom seetuma de moom ci kër gi lay ñëw chaque jour bi ma laajee ndax am na yoon bi ma demee ba mu yàgg la ma sama borom kër woo ne mu ñëwal ci kër gi ma ne ko lu xew mu ne ma sang la courant laal loolu rek laa ci am waaye amaatuma ci leneen te su fekkoon ni tey par exemple yàlla dama tàggu di yóbbu du mës a dem ndax féete na ma foo xamante ni fu ma kenn féetewul mbokki internet yi ñoo ngi leen nuyuwaat ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax euh, te it am naqar wax dëgg yàlla gox bi ñu nekkee dafa am jéeyo ju fi am maanaam koo xamante ne courant daf ko maas ba wax dëgg yàlla sunu borom euh, dogal mu jaare fa ñàkk bakkanam ñoo ngi koy ñaanal sunu borom yaram ko te xaare ko àjjana euh, ay leeral rek yu ñu fas yéenee dékk micro bi soxna si rek mu daal ñu ci indil ay leeral soxna si ñoo ngi leen nuyu. maa leen di fay bu baax. Euh, euh, ndax mën nga ñoo dikkilaatal ci jéye ji fi am waaw jéye ji sang man la doon seet maase la ma bàyyi nag ma toog mu ne maa ngi dem sa kër ma ne ko waa baax na ndax dem ci dafa maa woo laaj ma ndax ndox mi daa dugg sa kër ma ne ko waa ba fees bi mu xëyee maase ma fekk ko maase mu toog mu fekk ma fa ma toog mu nuyu ma ne ma ndax am na yoon bu jëm ba sa biir kër ma ne ko waa ah, dala doon seet moom seetuma de moom ci kër gi lay ñëw chaque jour bi ma laajee ndax am na yoon bi ma demee ba mu yàgg la ma sama borom kër woo ne ma ñëwal ci kër gi ma ne ko lu xew mu ne ma sang la courant laal loolu rek laa ci am waaye amaatuma ci leneen te su fekkoon ni tey par exemple yàlla dama tàggu di yóbbu du mës a dem ndax féete na ma foo xamante bi fu ma kenn féetewul bul jooy soxna bi mbir mi amee sàppoor mbir mi démb ba tey lañ nekk ci ndox mi ndox mi boo wàccee ci suuf sunu ndigg yi lay am ñu nekk ci démb ba tey di ci dund boo wàccee ci suuf mën ngaa visité kër gi bagage yëpp ñoo ko roñ aj ko mbedd mi fees del ndox mi dafa dem bi ñu wooyee sàppoor ci bi kooku def daanoo man fekkuma fi sunu waa kër ñi ko woo dañ ni leen sàppoor ne mënut a dugg ci biir koñ bi ndax ndox mi daa bari ci lañ jël risque ñoom ut oto boroom kër ga gële moo leen aar oto ñu jàppoo ko yóbbu ko hôpital waaye nag ñu dañ ñoo jàppale ndax bu ñu jàppale xëy na dinañ ci am beneen sens. bi ngeen woowee sàpp ñoom dañ ñu ndox mi tax mënuñu fee. mënuñoo egg si ci biir ndox mi loolu lañ ñu wax moo tax ñun ñu wut oto jëm koo yóbbu hôpital. bi ngeen demee hôpital dafa wàcc liggéey wala fii la wàcc liggéey. avant ñuy egg hôpital ndax man ñoom bi ñuy dugg hôpital man ci laay dugg hôpital dama egg rek ñu ne ma dog ok ñoo ngi koy ñaanal bu baax sunu borom yërëm ko te xaare ko aljana e si wax dëgg yàlla ni ma ko waxee léegi rek suñuy autorité war nañoo bàyyiwaat xel bu baax a baax suñuy ndawi réew ndaxte euh, euh, jamono ji tembe euh, ndaw ñi ñoo leen xeexal Euh, surtout jamono ji ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw ñoo leen xeexal ba ñu egsi ci kaw kon war nañ leen di bàyyi xel bu baax a baax yu mel nii bu amee donte ne sàppour mënuñu dugal seen oto waaye war nañoo war a mën a def ay pexe ba ñëw fi mbir mi amee wax dëgg yàlla waaye oto mënu faa jàll rek loolu du lay kon ñu gën a waat xel bu baax baaxa baax a wax dëgg yàlla lii lu metti la franchement lu mettee métti la waaw ndaxte bu ngeen nekke yor kaaraange askan bi euh, ñu am jafe-jafe ñu woo woote bi xaw a am tagatem bi maanaam xaw a jafe ñu woo leen ba jot leen wax dëgg yàlla loolu du seen lay li ngeen war a def mooy donte ne da ngeen xuus ànd ak ñoom naqar wi loolu ngeen war a def mais lii moom wax dëgg yàlla booy boo euh, ñu amaat ci taxawaay bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatu ñoo ngi ànd ak yéen naqar wi wax dëgg yàlla cër ngeen jëf mbokki internet bi ñi ci war a taxaw ñëpp nañ ci taxaw ndax metti na ñëpp franchement jërë ngeen jëf